ko day dikk bàkku ci département Mbour Petite Côte lig nee na ñetti million la teg mooy bi la 15 mai ca ñun lig koo ko dara jaale seen meeru Malicounda ndaanaan boobu nga xam ne département Mbour moo ca man rafetal ab liggéeyam gëm président Macky Sall waaye gëm Petite moom la lig Nicolas di delloo njukkal ànd ak waa ñali teg seen baaraam ma dem te ñëw cey gars yi lig Nicolas fu la jaar xaw ko c'est ça la réalité ba donc mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyuwaat encore une fois jàkkaarloog euh, coach Mamadou Diouf euh, ñu koy woowee ñas nekk coach ci rëg-rëg moom mooy borom bàccal yi coach maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi fay Ibrahim ñu ngi lay fay bu baax a baax. mais coach lan moo waral kagule bi fu mu toll nii ba gars yi ku la gis mënu laa xam ne. non non du loolu loolu du problème dañoo kagule wu sax mais xam nga avion bi ñu nekk ak clim beeg yooyu mu xaw a sedd yooyu moo tax ma solo nii ko te ku ne xam na ni feebar lañ nekk moo waral masque bi ko macha allah coach ngeen jógee ci benn compétition boo xamante ne one championship doon ko organiser ngeen doon def seen deux combats bu ngeen jógee Sénégal ba léegi am ci benn co benn victoire benn défaite euh, ban jàngat technique ngay def ci ñaari combats yooyu. waaw jàngale technique yi mooy que ne tey avant tout rek li may def mooy nuyu Sénégalais yëpp di nuyu suñu papa yi taxaw suñu ginnaaw fii ak grand layti Birane Cheikh di leen nuyu bu baax di nuyu sama sëriñ maam Babalé Mouhamadul Amin Alaaji Ibrahima Niass Kaolack Medina baay di ñaanal suñu xalifa Cheikh Pape Mahi Niass yàlla may ko gudd fan may ko wër géeram may ko lépp lu mu bëgg ci barke Yonent bi sallallahu alayhi di ñaanal mbooleem mi kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yàlla may leen gudd fan may leen lépp lu ñu bëgg ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc jàngat ñu ci am mooy que ne tey euh, gisuñ ci benn loo xamante ni tey loo xamante ni tey jàngat la boo xamante négatif la lu tax mooy que ne tey fayit nañ ko ci yoon mm. comprendre teg ko ci yoon yàlla nag moom ay ndogalam mm. te fu ko neex la koy jëmale. Mm-hmm. du dëgg tey bu nekkee ne tey mm-hmm. fi may njëkkee tuuti ma laal foofu tuuti maa ngi gërëm bëri Sénégal yëpp. Mm-hmm. parce que tey dama am ci jàngat ci ñoom ci biir rëñ ba. jàngat bu rëy rëy jàngat bi ma fa am mooy discipline bu ñu am seen diggante ak arbitre. discipline boobu noonu tey Omar daf ko wane foofu noonu. mooy respecter arbitre. te pourtant nit ñaa ngi wax sax mais bon tey. waa ji fu mu jaarale noonu Omar mooy doo ko coup boo xamante ne ni tey c'est pas normal Omar mënoon na ko def noonu parce que boo xoolee ci biir combat bi tey Omar plaqué na ko taf ko daw moom dem ba toog ci kawam mais bi mu déggee cloche bi la wàccee loxoom. arbitre sax dafa ñëw ba si moom di ko xëcc mu jug mu ne ko noono bàyyi ma moom Omar bi ko arbitre bàyyi mu yëkkati waa ji akulaat ko. kon loolu respect la ak respecté arbitre. wane fair play. voilà te pourtant nag waa ji bu defoon noonu defe naan du demee nii. mais ñu bëri nee nañ coup de dégagement la ci moment coup de moment cloche bi ñoom ñaar ñëpp a dóorandoo. non non non non non boobu cloche bi sonné na. cloche bi mhm. sonné na bu cloche bi sonnéwul woon kon duñ fi nekk dugal ay recours. parce que tey tamit nañu xool li nga xamante ni moom mooy yoon ñu di ko wax. Mhm. ñun ay sénégalais lañ. Mhm. nañu bàyyi xaste yi xaste amul njëriñ. du dëgg kenn ku ci nekk boo demee bay xas sa rek na nga gestu ginnaaw xalaat sa bopp ci tuuti si ginnaaw. Mhm. lu tax ma wax loolu mooy ñun ñoo bokk aadama ak aw ñoo bokk fu ñu jógee. Mhm. koo fi xas rek sa bopp nga xas. Mhm. te yàlla moom ay may meem ku ko neex la koy may bu ko ko mayee kenn mun ci dara bu ko ko xañee it kenn mun ci dara kon ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu. asalaamaaleykum macha allah mais coach itam euh, bëgg nañ comprendre benn mbir moom mooy Reug Reug combat yi mu jógee. prestation yi mu ci doon def doon gagné avec la manière bi yoon gisuñ ko ci tey lan moo manqué woon rëg-rëg est-ce que corps gi la woon est-ce que fraîcheur la woon est-ce que excès d'entraînement la wala ñàkk étudier adversaire bi non comme ni mu la ko waxee rek moom comme ni mu la ko waxee tey kenn du combat nit te doo ko xool loolu amul amul kenn koy combat tey doo ko xool bu dee benn waxtu la sax di nga ko xool mhm. donc Omar du lenn loo xamante ni tey manqué na ko mhm. ci wàllum entraînement ci wàllum préparation mhm. comme ni comme ni ma la ko waxee yàlla moom moom moom ay ndogalam fu ko neex la koy def te kenn mënu ci dara mais du lenn loo xamante ni tey Omar manqué na ko salaam. lenn loo xamante ni Omar manqué na ko ngeen war a jàkkaarloo waat ak Kirill Grishenko comme ni ko Omar waxee dans trois mois bi yoon quel sera le plan. non plan bi moom du lu ñuy taxaw di wax fii comme ni ma koy faral di waxee rek. Mm-hmm. parce que kenn du dem guerre di wane armes yi ngay yóbbu mm-hmm. voilà. kontaan nañ ci yow coach mais coach euh, ci cage bi gars yi nee nañ li nga doon wax Omar tamit di ko wax naan ko dëggal tànk beeg dëggal dëggal génnal foofu ñu ñu bëri nee nañ loolu da koy perturber itam est-ce que loolu di nga ko changer prochainement wala pour yow amul c'est c'est tout à fait normal. en tant que coach lu tax ñu hmm. naan coach. tey mënu dem ba foofu rek tëj sama làmmiñ noppi. Hmm. loolu moog mu bañ a yóbbu coach ñoo yem. Hmm. am déet ah, loolu moog mu bañ a yóbbu coach moom ñoo yem. comprendre kon donc mënoo yóbbu nit ki tey comprendre mu taxaw di fight en tant cote coach su tey yow nga tëj sa làmmiñ noppi. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. loolu defe naa ñi koy wax xëy na mais nag du ñu sax wax ne ñi koy wax xëy na dañ ñu yéene leneen. mais nit ku nekk Ibrahima nit ku nekk ak tolluwaayam. Mm-hmm. te nit ku nekk sa tolluwaay bi nga tolloo yow foofu ngay waxee. du dëgg kon dañ leen di nangul si seen tolluwaay googu nga xamante ni ñoom fa la ñuy toll ba taxaw ñuy wax. macha allah kontaan ci yow waaw mbokk yi dégg ngeen léegi léegi Reug Reug déclaration bu mu def nee na ni que combat bi dañ ko war a faytaat dans trois mois te léegi bu combat bi jeexee lendemain bi ma déggoon ni que euh, def nga benn recours est-ce que recours boobu dafa jàpp. waaw alhamdulilah rabil alamin mm-hmm. liñ mun a wax mooy. Mm-hmm. jàpp na du moment où ñu ngi ñuy wax ay affaire rematch. Mm-hmm. donc euh, li ñuy xëccoo kay mooy. dañoo bëgg complètement ñu dindi euh, victoire bi. daal di def nag rematch. Ah, mais ñoom d' accord nañ fi mu ne nii ne dañ ko war a bëriwaat. d' accord nañ ni que dañ ko war a rematch mais est ce que Kirill Grishenko joxe na avalam pour rematch bi am. du Kirill Grishenko mooy joxe avalam. Mhm. parce que du moom moomul wan champions rek moomul wan champions. Mhm. ñoom ñëpp dañoo signé ak wan FC. Mhm. donc euh, bu dëgg bi ñëwee wala bu ñuy joxe verdict. am na instance boo xamante nii moom moo koy joxe. instance dirigeante boobu noonu nag comme moom moo koy joxe moom rek la déglu. donc man li may xëccoog ñoom mooy comme ñoom dem nañu. ba d' accord ne war nañ ko rematch c' est dire war nañ ko bërewaat. Mm. donc dama jàpp ne verdict bi dañ ko war a kase. mais kase wuñu verdict bi jamono ji. waxaguñu loolu mais en tout cas ñun ñu ngi ci pour ñu kase ko ñu doog a rematch. est que jox nañ leen est ce que confirmé nañ seen ñu jëloon wala waxaguñ ci dara ci côté boobu ñu ngi concerté wu ba léegi. non li ñu wax rek mooy dañoo ne bu fekkente woon ne non conteste bi du jàpp. kon daanaka du mot benn fan ñu joxe résultat yi mm. mais jusqu'à présent ñu ngi ci ay études mm. mais liñ liñ ci wax mooy danoon en aucun cas rematch lay doon donc ñun en aucun cas boobu nag même buy doon di match ñun on est pour mais problème bi mooy il faut ñu kase lee tam. ok donc kon décision bi génnagul rematch bi daal ñu ngi koy wax ni que dans trois mois combat bi dina amaat mais décision bi génnagul comme quoi la le verdict a été cassé. incha allah waaw. ok oh, euh, Leyti ñu ngi jëm ci ci ci làmb ji nag gis nga rëg-rëg li <laughs> yegsi na waa TFM ñu ngi fii digganteem ak guy gi war na mun a am ci trois mois yi balaa muy delluwaat kon euh, bi euh, Singapour. waaw incha allah comme niñ ko waxee caméramanu TFM i ñu ngi fi mm-hmm. ils sont pas là pour rien mm-hmm. waaye jàpp naa ne comme doyen Pala moom mu ngi nii mm-hmm. Alaaji Kan aussi mu ngi nii sama ginnaaw yaakaar naa ne loolu moom. Euh, damay def transition ñun itam yaakaar naa ne xëy na c'est pas pour rien ñoom ñu nekk fi daal. <laughs> kon xam nga doxantu naa gis per euh, Pala Père Pala maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax. mais Père ci loo ne. maa ngi sant yàlla. yaa ngi si jàmm bu baax. maa ngi euh, sant yàlla di sant sénégalais yëpp. ci jàppale bi ñu doon jàppale euh, Umar. ci bi mu demee jàkka yeeg fu ne dañ ko fa doon ñaanal. kon loolu jar na sant yàlla dafa meloon ni fii la làmb jaamee. Mm. kilifa yu mag ni ma ñoom nelawuñu. 4 mm. heures du matin fekk na leen ñu ngi toog di seetaan. kon loolu ak cant la. ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax waaw. mais père dafa mel ni dama am ay émissaires yu la seen côté arène nationale ci bureau CNG. xanaa combat bi dañ ko régulariser. waaw ñu ngi ci yoon wi nag régulariser guñu ko waaye Mao Cissé mi nga xam ne moom moo organiser combat bi léegi wax na ma ne ma mardi incha allah dinañ ko régulariser. est-ce que am ngeen date bi nga xamante ne jàpp ngeen ko pour combat parce que dafa mel ni date yi dafa fees euh, fii ba juillet août promoteurs yi jël euh, leen date yi. xam nga ni ñuy jàppee date. mooy mbër mi d'abord dafiy nekk mm-hmm. mbër mi d'abord dana am visite médical ak licence am mm-hmm. ñëw renouveler ko au niveau du mm-hmm. ñu woo ñaari ménager yi ñu toog ñu ubbi calendrier bi jox ñu date mais am ngeen benn date bi ngeen am en idée fu mu toll nii waaw am nañ am nañ ay dat mais bëgguñu ko wax te fekk date yooyu leerul waaye daal li ma mën a jàpp mooy guy gi bërki démb ñëw na ba def formalité rëg-rëg lañ doon xaar mu ñëw def formalité am mardi incha allah danañu toog ñun ñaari ménager yi ak promoteur bi di Mao Cissé ñu régulariser combat bi. mu mel nii mais combat bi sa combat la yow lu tax ma ne sa combat la yow yow ku ne xam na ni guy gi yaa ko tette ba mu nekk champion yaa nekkoon manager am léegi nga walbati ku nekk manager u rëg-rëg combat bi est-ce que mun nañ ci xaar perpa la wàcc ci géew bi jox ay indication rëg-rëg pour pour pour jël bi. loolu kay mi ngi mel ni rek mu ngi mel ni nga ñëw fekk silmaxa rek nga naan ko gëmmal. xale boo xamante ni yaa ngi moom ànd muy bëri ay petit combat préliminaire nga yéeg ak moom ba yegg si fii. xam nga ne ku mu mën a bëreel bu la yàlla mayee wér di nga ànd ak moom waaxu ci biir géew bi mhm. guy gi nag maa ko yoroon moom itam jële ko quatre-vingt mille ba yóbbu ko ci kalaafu cent millions mhm. com combat mag Siteu rek laa engagé wul mhm. waaye bi suñu diggante jeexee jeex na te ba ma koy yor fekk na maa ngi yor Reug Reug comme diggante ba jeex na ma des ak ki nga xam ne suma doom la aussi lépp lu ma war a def ak mbër lépp fu ma war a aw mbër lépp lu ma war a xalaat ak mbër incha allah damay ñaan yàlla may ma wér ma jaar faak moom yàlla may ko ndam lu seddu guy ñu ñibbisi moom. yow mi tëttee guy gi quatre mille ba cent millions est-ce que xam nga faiblesse guy gi. ah loolu mënul ñàkk. koo àndal kay koo jiitu ci néeg di nga ko wax yaa ko wax fu muy toogee néegul lëndëm yaa ko wax fu muy toogee. di ko dee rek rek. ah loolu xam nga ni mënula a ñàkk il faut ma génne samay xalaat waaye nag euh, da ñaan daal moo solo ñi ngi ñaan daal yàlla may ko wér may nu ko ñun ñii fi taxaw ñëpp ba ñu yegg saak jàmm ak salaam. macha allah am na benn waay joo nekk sa wet moom moo yor gallaaj yi moom waay mu ngi waajal boppam pour <laughs> ko moo yor gàllaaj yi mu ngi waajal boppam pour combat bi nga xamante ne moom mooy diggante ma guy gi mais na nga fexe ba gàllaaj yi nga yi nga indi woon keroog nga renouveler ko ndax mbër bu jógee ci komba bu jafe day renouveler gàllaaj ah Cheikh. amuñu ko yor gàllaaj. <laughs> <laughs> Eh, dañuy làq. Sénégal laa bëgg waaw léegi def ne fukki fan ak juróom ci weeru mai laa jëm ñani muy lutte traditionnelle teg fa ñetti millions ñu ne seen fàllig Nicolas mu ni Ndeye Adama Jali ndaanaan bu mag bi nga ni lu may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 président Sall waaye gëm Petite Côte moom la Luc Nicolas di delloo njukkal ànd ak waa ñani teg leen seen baaraam ma dem te ñëw cey gars yi Luc Nicolas fu la ndaanaan di jaar xaw ko c'est ça la réalité ba ndax loogu mais xaada am sorry